Éducation sur SIM TV. Santé sur SIM TV. L'actualité sur SIM TV. Politique sur SIM TV. Sport sur SIM TV. Religion sur SIM TV. Culture sur SIM TV. C'est un qui SIM TV. mbolo mi ma ngi nuyu kenn ku ne turam ak santam ñu ngi neena xey ndaw ñi te xey ndaw ñi bu ñu taxee jóg kon kep ku ne li tax nga joggé sa kër bam tax la jog da ngay def li la tax joggé sa kër da nga ne liggé mo la tax joggé sa kër nga bayyi sa yité yépp li la tax jog moy fula ak fayda kon dañuy def fula ak fayda googu mais pa ñi di liggé ñi di tok nak tay bu ñëwé nga ne da nga bayyi sa yité yépp li tax la jog nga bayyi papa bayyi yaay bayyi say njabot ñëpp yaakaar ne yaa ngi liggéey nga ñëw di toog suba ba ngoon jot yenuwul maanaa ndax lan tey jii boo jógee sa kër ne da ngaa liggéey si kon li la tax a jóg moom ngay def man de ba ma jógee sama kër damaa ne liggéey kon liggéey bi ma tàggoo moom laay def ba lépp lu ma siy fekk ñoo xam ne lii de maa ko ñàkk mu leew ma trop mais góor yàlla yi jigéen ñi dañuy jóg di rey seen bopp góor yàlla yi toog fi ñu toog bañ duñ liggéey te loolu yenuwul maanaa rafetul li rafet mooy ñun ñëpp nañ bokku liggéey gi doon benn say parce que bu ngeen doonee ay nawle bu nangu kenn ku la yam wala kenn koo xam ne dangay ñëw kii ne la defal lii kii naan la doo def lii kon nañuy bañ lool noonu. li andi loolu noonu daa am ay clan te clan yi nekk suñ biir feeg loolu dañul liggéey bi du mës a jëm kanam parce que faaw ñu doon benn say doon benn say rafetal suñ xol yi nit ki nag boo rafetul sa xol.

buñ liggéeyee buñ liggéeyul avantage bi du si ñoom su ñun ñëpp lay métti parce que tey jii boo waroon fayeeku tey cent mille fayeeku fa cinquante mille kon liggéeyoo ñii ñoo liggéey ñii toog kon nag dañoo bëgg buñ dee def na ñun ñëpp ñu def bu ko defee ñun ñëpp kenn ku si nekk la ngay am di ko yóbbul sa njaboot mu doon lu leew ñu sa njaboot bañ a lekk riba te fii looloo ne am na ñu bëri ñoo xam ne seen i njaboot riba lañ leen di lekk loo waaw cadre boobu nag su ma la si waxee leen waxuma li am ndax xaw ma si lu bëri mais ñun ñii di ko liggéey bu ñu sañoon mu sës moo ñuy arrangé parce que nga am largeur am longueur moo lay gënal sa xaalis gën a bëri waaye boo ñëwee fii ñu nee dangay ngay sës fii doo sës loolu arrangé ñu wuñ des fois da am espace boo xam ne ay 1 mètre la nga nar ko liggéey boo ko liggéey doo si am dara dangay wàcc di wàccaale kenn ku nekk nga wàccaale 1500 te rafetu waa liggéey bi par mètre carré lañ koy def. nombre de mètres carrés bi nga liggéey si journée bi moom lañ leen di partager nombre de personnes bi ko liggéey bu ñu doonee 65 personnes 65 personnes yooyu lañ koy mais lañ koy par fin du mois le 5 pile ñu fay la sa xaalis wax dëgg fa yàlla salaire du tardé paiement bi jaar noonu salaire bi du tardé bu doonul week-end le 5 pile ñu joxe sa xaalis te am na benn week-end boo xam ne samedi la tombé mu doon le 5 dañoo ñëw fay paiement bi moom du tardé macha allah wax dëgg fa yàlla. waa wàllum pointage nag. li ma si mun a wax du bëri ndax la ndax ñii dañuy ñëw heure ñii duñ ñëw heure te heure bi ñu joxe bu fekkoon ñoom respecté nañ ko kon pointage bi du am heure heure liggéey bi dañ la ne carrément huit heures maximum neuf heures dix lañ yemale pour xëy bi wàcc bi seize heures pile la kum neex seize heures pile bu jotee bu liggéey bi yeegul faxasal say dëbës dem ñibbi loolu la contrat bi signé. mais quant à pointage man pointé wu ma pointage bu jotee heure bi ñu ma jox dinaa ko respecté heure boobu dina ma fekk ba bu ñuy rappelé tamit dina ma fekk foofu ma taxaw mais ñi nga xam ne nag dañoo demoon mais deux cent deux rangs lañ def deux rangs nit ki ak lépp loo mun di am mun nga ko tolloo rek ndax lan def te yàlla tax ndax boo defee te yàlla tax kooku nga dimbali tey ji te yàlla tax googu noonu dina tax tey bu subaa mu ne na ah man de kii dimbali na ma si benn côté bii nii kon duma nangu tey lii dalaat ma suba xam nga parce que lépp loo gis waxtaan la ak dimbali wante si suñ biir ñun buñ dimbali wante suñ biir liggéey bi jëm kanam parce que ñii dëkkuñ fii dañuy dem te buñ demee ñun Fatick ñoo fiy des ñun ñooy doomu Fatick sëgëm ñun ñooy doomu Fatick nag duñ nangu ay nit jóge fële ñëw bugg fi wale suñ dëkk war waruñoo nangu loolu toujours muy rafet moo gën muy ñaaw parce que tey liggéey bi nii lu ne mun na see xaj ay tuddante doom mun na see xaj ay demlante xaj si leneen ak leneen kon nay rafet. waaw man li may ñaax kilifa yi mooy sëgëm ñoom ñooy suñuy kilifa nañu defaraat seen i toogaay buñ defaree seen i toogaay ñoom pointeurs yi ak chef de groupe yi ñoom it ñu xoolaat seen toogaay bu ñu xoolaatee seen toogaay. bu ko defee seeni njaboot mun a xool ni ñuy toogee parce que daan naa dégg si mag ñi ñu naan ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay mun a ne toogeel nii ndax tey munoo munoo maa jiitu si néeg bu lëndëm man ma dugg bu a xam fa may toog munta ne yow yaa ma si jiitu yow yaa ne ah diw defeel nii defee nii su ma sañoon bu ñu defee nii lii nii na doxalee nii lii doxalee nii kon ñun nañ jàppalante suñu biir te xoli ranking bi ne suñu biir ñu génne ko faaw ñu génne xoli ranking bi ne suñu biir bu loolu génnee Fatick mun naa avancer mais feeg loolu génnul barki rasulillahi Fatick du mës a avancer parce que dañuy soxorante suñ biir faw loolu dëñ waaw kàllu gu mujj gi nag nit motul wax ji boo amee lu si dëng nañ ma jàpp nañ ma baal te xam ne nit motul mais jóguma woon pour yàq mbaa may dëngal dama jóg pour ñu defar te defar googu moo ma taxoon jóg yàq taxu taxumaa jóg ku si gis sa bopp nag maa ngi lay baaluwaat àq ne du dara pour lekk ñu defar ñun ñoo bokk suñ Fatick ñoo moom suñ Fatick buñ defaree Fatick Fatick jëm kanam buñ ko yàqee Fatick ñaaw parce que ñoom ñooy dem buñ demee bëgg naa de ëllëg si biir man bu nit rombee ñu ne ko ah sama doom bu fi rombee ñu ne ko sa papa de moo liggéey lii kon souvenir la ak ñeneen ak ñeneen kon nay rafet lu si dëng nag nañ ma baal éducation sur sim TV santé sur sim TV l'actualité sur sim TV politique sur sim TV sport sur sim TV religion sur sim TV culture sur sim TV C'est ay par TV. Thank you.